salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa Univers Bio tey nag dañ leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise aleen ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génnee ci seen biir am na ñoo xamante ne day génnee seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag bii moom moo koy traité bii nag lii ma tee nii moom moom moo koy faj ci put bi ak ci estomac bi ndax mauvaise haleine dafa yaatu comme ni ma leen ko waxee lii dañ leen koy mayaale ndax day fajaale rab ak ak ngelaw seytaane ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn ñi rab lii nag moom dañ leen koy mayaale waa ñun waa bi bio ku soxla sunu numéro nag dangay def 77 160 93 93 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax tey jii nag ñu am yéene pour waxtaanee lenn ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla lu sonal sénégalais yi la lu sonal askan bi la yéen nak wa télévision bi ñu ngi leen di sante di leen gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw fi di ñu laaj ñu ngi leen di déglu ci lépp lu ngeen ñu laaj rek incha allahu rabbi ci fièvre bi ngeen wax ni moom ngeen am yéene pour waxtaanee ko muy fièvre mauvaise haleine ñu ngi leen ci déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëfe Serigne Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lam. jërëjëf maam ran waaw définition mauvaise haleine moom mooy halitose. mooy xeetu gémmiñ bi nga xam ni nit ki ñi ko wër wala entourage am dañ koy faral di sentir li nga xamante ni daal dafay indi xet bi nga xamante ni daal du neex muy ay infection bucco-dentaire loolu infection bucco-dentaire nag boo leen koy déggee mën na nekk ay infection wala ay bactéries wala ay microbes yi nga xamante ni nit ki da koy am ci gémminam ci plaque dentaire yi ak surtout ci infection yi nga xamante ni dafay nekk ci biiram wala infection yi nga xamante ni dafay nekk ci put bi loolu nag euh, la majorité ci ñi nga xamante ne dañuy am mauvaise haleine bu nga xamante ni bu ñu demee hôpital mën nañ leen sax defloo fibroscopie pour ñu mën a xam infection yooyu fan la nekk ci ñoom ñu bëri ci ñoom it dañuy dem ci hôpital dem ci dentiste yi jaar fu bare bare bare bare bëri waaye il faut qu'un spécialiste en ça te itim dafa laaj un traitement bi nga xamante ni général parce que mauvaise haleine dafa nekk feebar bu yaatu feebar bu yaatoo yaatoo yaatu yaatu li ko mën waral ci nit dafa bari lool te xam naa ne ci biir émission bi boole ñu dégloo ngeen teewlu ko di ngeen mën a comprendre lan moo koy waral dëgg dëgg dëgg dëgg ci doomu aadama. waaw jërëjëf Mamran ah, mauvaise haleine nag dafa bari trop ay forme comme ni ma ko waxee léegi ñenn ñi seen mauvaise haleine ci gémmiñ gi lay jóge ñenn ñi seen mauvaise haleine ci put bi lay jóge mën nañu am daal am na ñi xam te ne dañu am angine ci put bi am na ci xam te ne dañu am ay grain yu nekk ci biir put bi bu ñu yeewoo soo génne ko buñ ko génnee dañuy génne ay grain yu weex tàll buñ ko tojee muy mel ne ay doomi ceeb buñ ko muy am xet bi nga xamante ne daal ñoom seen bopp sax du leen neex te grain yooyu buñ ko gisee ay infection la maanaam dajale na ay bactéries yu bëri ci ñoom ndax am na yoo xam te dañu am poche fii fa lekkee lekk bi dana fa des ñaari fan ba ñetti fan lekk boobu day dem bëri day nëpp di am xet am ñoo xam ne dañu am ulcère am ñoo xam dañu am estomac am ñoo xam te dañu am reflux gastrique œsophagien am ñi nga xamante ni itim dañu am hémorroïde ndoxum siti loolu yëpp dafa bokk ci forme yi nga xamante ni dafay provoquer mauvaise haleine maanaam fu mu mën a jóge ci nit bari na am na nga xam te ne xet day ba nekk seen yaram maanaam day nekk ci seen pokataan bu ñu sangoo sax quelques minutes après rek bu ñu ñaqee xet bi day xeeñ seen suufu tànk yi day xeeñ ma baal am ñoom te ni seen seen diggante tànk yi ci suuf dañuy gis ni day retax day xóoñ day am xet moom kon xet dafa nekk li nga xamante ni ci nit lu doy waar la da ngay déranger nit ñu bare bare bare bare te nit ñooñu am mauvaise haleine ñenn ñi xam nañ ko ñi ci des xamuñu ko te ñenn ñi sax dañ leen koy dem ba di leen ko jànnee wala di leen ko jëwee wala di leen ko waxee am na ñoo te dañu am feebar te du am ñi dañ leen koy xoolee duñ leen ko wax te loolu yëpp dafa nekk ci li nga xam ni lu ñuy faral di gis la allo salaamaaleykum waaw Serigne Lamine Bara Fall waaw man la Ibra man la Ibra laay dëkk Cambérène 1 waaw traitement mauvaise haleine bi kontaan naa ci de kontaan naa ci bu baax a baax a baax parce que sonoon sonoon naa trop trop trop sama bi da doon jooy mënatumaa dem ci xew yi mënatumaa dem si ngénte yi man wax dëgg yàlla daal suñ bi kontaan naa bu baax a baax moo gis bi sonal na ma trop trop trop trop sama biir bi da doon jooy ak lépp léegi lépp macha allah suñ bi maa ngi lay sant nag bu baax baax di la gërëm di ñaan yàlla mu yàggal taxawaay bu baax a baax a baax moo gis bi daal suñ bi solo na solo loon la ma lool lool lool lool waa ji mënatumaa na dem fenn fenn fenn kër gi sax mënuma ko a wax dëgg yàlla mais instant yi daal sant naa bu baax a sama biir bi da daan jooy itam sama biir bi da daan jooy sëñ bi mënuma ma na dem fenn wax dëgg yàlla sant naa bu baax de ma mënuma wax sax jërëjëf sëñ bi. waaw Mame Rane loolu moom. lu neex a xam la ndax. kenn ku ci nekk xam nga sa bopp waaye ku ñëw def consultation ci suñu cabinet ñun niñ koy xamee bu dee ñun la exactement dañuy poser une consultation def une bonne diagnostic bu ñu poser consultation boobu def diagnostic bi ci la ñu mën a xam lan moo mën a indi gàllankoor boobu ci nit def consultation bi def diagnostic bi am na ay petit travail ñu lay def loo am na ay exercice ñu lay def loo nga ngaan ñu identifier ko ba xam ni réellement euh, mauvaise haleine ñaareelu mbir boobu bu ñu jógee ci loolu itam ñu xam ba xam fan la mauvaise haleine bi mën a jóge ci moom bu ko defee bu ñu def euh, traitement bi ça nous permettra ñu xam exact fan la nekk waaw jërëjëf membran ci wàllu wàllante nag wàllu contamination ak mauvaise haleine am na ndax wax nañu ni am na infection yi nit di am ci gémminam wala infection yi nit di am ci yaramam yi nga xamante ni mën na wàllante ndax feebar yi am nañu yenn nit ñi nga xamante ni bu ñu amul yenn hygiène de vie yi ci seen bëñ wala seen i gémmin duñ ko toppatoo bu baax nag ma baal ci kàddu gi buñ la fóonee sax le fait que ñuy fóonante boobu rek mën na la wàll feebar bu ñu wax feebaru mauvaise kon nag am na bactéries yi nga xamante ni la ko transmettre rek mën na dem ba yooyu bactéries wu ci say plaque dentaire day dugg say diggante bëñ te mën na dem bay lakk sa bëñ xalal sa bëñ sa bëñ day dem ba jaune wala sa bëñ day dem ba xonq cur wala ci yenn ndox yi ñuy naan échangeante yenn ndox yi dafay nekk li xam te ne dafay mën a wàllante mauvaise haleine waaw jërëjëf membran waaw mauvaise haleine moom ni muy manifesté woo euh, xet bu naqadi rek di wax ak ay nit nit ñooñu di dem dëmmooyu di la wan ginnaaw ngay wax ak nit muy tëfli ngay wax ak nit da santé ni nit yaa ngi koy dérangé mu jël yéreem taf ci bakkanam wala taf ci gémminam nga xam ni kii vraiment euh, am na odeur buy manifesté wu dafay dem ba yàq seen àddina dootuñu mën dem ci xew dootuñu mën dem ci mbooloo ñenn ñi yàq na seen sëy ñi yàq na sax seen liggéey am ñoom tamit dañu amoon relation lool ak doomu aadama yi di nekk nit ñi di jaay di business nekk ak doomu aadama yi ñi bëgg leen ñu bëgg leen mais dem na ba mënatuñoo ñeme sax dugg ci biir nit ñi fu ñu toog toog rek xet bi dafa leen di déranger dañ koy sentir am na ci ñenn ñi xam te ne sax dañuy dem ba ci barabu hôpital yi wala yenn structures yi mais dañ leen di jàppee dof dañ naan yow rek yaa koy xencu te fekk dafa laaj une diagnostic dafa laaj une bonne diagnostic bi nga xamante ni yow aji fajkat bi soo amul temps malade amoo ci moom yërmande toogoo dégluwoo ko xooluloo ko wala maladie bi malade bi itam bëgg di wax rek te def consultation bu approfondie parce que yenn feebar yi boo ko amee pour mu am résultat il faut faire une bonne diagnostic bi nga xamante ni dafay approfondi ndax diagnostic bi soo ko approfondiree li la war yow malade bi def ko kii fajit li ko war mu def ko kenn ku ci nekk da nga am sa waar fajkat bi dafa war a déglu malaatam bi itam warul def automédication maanaam déglu jël garab bi baax na barab baax il faut ngeen seet ay spécialistes ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci loolu malaat bu nekk wala façon malade bu nekk ñun gis nañ ko on a beaucoup beaucoup beaucoup d'expérience à ça te képp ku ñu jox traitement bi itam un traitement général complet lañ lay jox yàlla defal la ci taw tawféex ci kàttanu yàlla. salaamaaleykum sëñ bi li ngeen ne mbaa yéen a ngi si jàmm bu leen jaar lu bëree leen ñaanal jàmm te di si yéen dama déggoon sa publicité si télé bi si laa jëlee woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine man daal def ma sonal trop wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak euh, façon boros bu ne pat bu ne jënd naa ko bain de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla sonnoon naa de lu ma doon dund ay at mauvaise haleine yi mu sonal ma witt witt witt billaahi dem naa ba mel na ku dof sax su ma seeni ni sax balaa may egsi wallahi munuma sama yitte yépp laa daggoon wallahi azim sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd ci ay bain de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallahi ngeer sax lu ne luñ na baax na rek ma baaxal sax di ko def ay bain de bouche ak lu ne waaye mauvaise haleine fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkër butéel bu man ma indil bi ma naan butéel ba muy bëgg a jeex bu mel ne daa yokk wóor na yàlla ma découragé si laa doog xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye wax dëgg yàlla yàlla jàppale ñu sant yàlla billahi maa ngi waxante ñiñ normal fi ñu toll gëmewuma ko sax nag wallaahi gëmewuma ko ndax dafa nekk lu métti métti ci man moom toog di ko xalaat ko xalaat bu baax sax waaye sant yàlla yàlla na leen yàlla jàppale daal yàlla yàlla fay gën a wéral cëriñ kontaan naa nekk leen si jàmm ju bari jërëjëf

day yak sa bañ sa bañ day dem ba day jaune day xal day dem ba tek beur ñi xamanteni duñu soccu duñu bros seen bañ ndax amna ñi xamanteni sax rab ak ngelaw sheytane mo leen ko def ñen ñi itim liggey ndax nit dina nek ci barab di liggey wax deug yalla nit ñi bëgg ko jublu ko mais day na war am ñoo xam lay yóbbu ci sëriñ sané la nga xamni ñi la jublu won ñëppay dëdd won la ginaaw à tout moment fo tok say ram day xéñ te loolu itim nek na li nga xamanteni baxul loolu itim yépp maam dafa nek li nga xamanteni lu nit ñi di dund ndax buñ ko waxulit ki tok diñu sétante gis ci bopam du ci xam dara te du xam sax fan la jëm kon ñun exactement loolu lañ ci jublu. informer pour sensibiliser pour dimbali itam ñenn ñi nga xamante ni dañu soxla ndimbal waaw ndax ñëpp yemuñu bu yàpp yëpp yemee ne ras yenn yàpp yi paakaru ci am yoon. waaw jërëjëf mamran Rane laaj bi nga laaj am na solo muy wàllu nit ku woor ak mauvaise haleine. waaw am na ñi nga xamante ni euh, am xetu gémmiñ tax na mënuñu woor wala am xetu gémmiñ dafa yàq seen koor dañu dem ba ni ñoom est-ce que sax seen koor baaxati na parce que dañuy xëdd mais li ñuy xëddee yëpp seen estomac lay nekk toute la longueur du journée à tout moment dañuy géex à tout moment dañuy yoqol à tout moment dañuy am ay reflux gastrique seen ñam du rees dafay nekk lu yéeg di wàcc am ñoom ni sax day taxaw ci seen put bi fii loolu yëpp dafa nekk ci li nga xamante ni mooy loolu dañ koy xenc ba ci seen bakkan kon ramadan ak euh, mauvaise haleine lu lu lu am importance la ñenn ñu bëri bëri bëri bëri bëri bëri yàlla xam na ni seen koor dañuy sax tiit ni est ce que sax seen koor baaxati na ñenn ñu bëri mënuñu sax jéemati woor dañ ko jéem a sax bàyyi kon nag occasion la pour wàllu ramadan ak euh, mauvaise haleine képp ku ñu ci yàlla boole. incha allahu rabbi danañ la ci dimbali. Lamine Bara Fall ziar naa la ziar naa la bu wér a wér a wér man la Ndeye Seck xam naa di ma fàtte de man la cousine mami bi mami Diop si Kab Mbaaw man la fa mami jóob indi indi woon pour nga fajal ma problème mu mauvaise haleine bi affaire yi maa doon def traitement bi. di jégalu si gëj a déggante bi de dama nekkatu si kaam nag Kaolack laay sëy moo tax nga gëj maa dégg maa ngi sëy Kaolack te fàttalikoo si kooru daaw lu tombé loon de kooru daaw bu ma la wax naan man lii est que dinaa wér ndax far sax bëgguma koo am <laughs> ndeysaan nga ñaanal ma naan ma bu neexee yàlla kooru déwén di nga am koo taajoon dëgg suñu borom nangu na sa ñaan de wax dëgg yàlla. naa ko borom nangu na sa ñaan dëgg yàlla maa ngi nii kaw rax laa sëy moo tax sax nga gëj maa gis foofu mais moom traitement bi moom wax dëgg yàlla macha allah dama lay sant di la gërëm ndaxte. métitu biir bi moo ma gënoon sonal sax que sama mauvaise haleine bi métitu biir bi mais depuis nga may jox garab yi may naan def traitement bi normal ak surtout paj yooyu sax wax dëgg yàlla moom gis naa si tan bu baax a baax mais incha allah nii maa ngi nii Kaolack te dama nekk nii en état sax dama nekk jigéen bu wéru mais bis bu ma yàlla may omi sedd moom ba mu ñëwaat Sicap ba mu ñëw dakaar bu neexee yàlla dinaa def la tout ba ñëw fa incha allah bu mu fàtte si ñaan jërëjëf waay jéggul nag si gëj a déggante bi di bu wéer a wéer ñaan ngeen nangu nag xam nga jëkkër rek moom <laughs> bu xasee am moom yu bëri dootoo ko lii ñaan ngeen nangu ba pare damaa gis tan rek nga xam naa ne bu ma affaire sonaloon ba léegi chaque jour nga ne ma naam deraa est-ce que est-ce kon sax su boobaa dinaa am jëkkër <laughs> ma tiitoon naa jaaxle woon naa jërëjëf yal na la suñu borom fay mais bu neexee yàlla bu ma ñëwee dakaar yi dinaa fi ñëw incha allah waa kay jërëjëf jërëjëf Membrane. Euh, ci wàllu li nga laaj léegi muy wàllu traitement bi traitement bu général lañ la jox. traitement bu complet la moom traitement bi du bàyyi dara def la koy fajal ci gémmiñ gi fajal la ko ci put bi fajal la ko ci ulcère fajal la ko ci estomac fajal la ko ci amygdale fajal la ko ci rab ngelaw seytaane ci wàllu liggéey maanaam du ñu bàyyi dara traitement général la traitement complet la incha allahu rabbi contacter leen ñu daañ leen wax nu ñu koy fajee généralement dañ ciy def tawféex xéewal lañ ci def bi nga xamante ni forfaitaire am na livraison gratuite ndax du ñëpp mën a ñëw ci ñun am ñoo xam ni wax dëgg yàlla ay kilifa lañu wala seen tànk dafa diis mënuñoo ñëw fu ñu mën a nekk daal leen fu mën a fekk livrer leen seen traitement ci sutura ñu ambale ko jox ko suñu chauffeur mu indil la ko ba sa kër ak foo mën a nekk ci Sénégal ci àddina mën nañ xefee ba nga jot ci incha allahu rabbi am ñoo xam te ni nag mën nañu ñëw comme ñu nekk Dakar wala ñu jege ñooñu mën nañu ñëw def consultation ndax niñ leen koy defalee c'est un traitement forfaitaire ci biir forfait bi da ngay amaale consultation gratuite wala nga am livraison gratuite kon nag ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm ñoo ngi ñaanal képp ki nga xamante ni rek am nga feebar bi ñuy wax jéem ñu contacter ñu wax la forfait bi ñaata la bi xam ne di ci am consultation am ci livraison lép nekk ci biir jox la traitement bi xamante ni du bàyyi dara ñu bëri nag dañ koy faj ci gémmin bàyyi biir ñu bari dañ koy faj ci ci put bàyyi nangam gis naa ci nga xam ni sax wekki nañu lu ëpp juróom-ñaari bëñ wala juróom-ñetti bu ñu dindi yaakaar ne xet bi la te fekk du ci bëñ bi lañ koy yaakaar te fekk ni mën nekk ci biir a biir a biir a biir waaw kon nag lu mu ci mënti doon incha allahu rabbi danañ leen ci mën a jàppale defal leen ci consultation may leen ci garab jàppale leen ci ba loolu dañ ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ak aminu Serigne Touba. képp ki nga xamante ni rek euh, soxla woon nañu mën na woote ci numéro yi ci ban écran bi euh, incha allahu rabbi di 77 169 45 45 77 169 45 45. duma Touba nag. ak région yi ku ko soxla daañu la ko mën a livrer incha allah jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum Serigne Bara Fall man la Ibrahima Diallo euh, dëkk Guinée Conakry euh, wallahi sa garab yi ba ma ko jëlee ba léegi maa ngi sant moo mauvaise haleine bi euh, moo tax ba ma gisee si internet bi ma gis sama mbokk bu nekk Sénégal foofu. Ah, mo ma jox ko sa numéro ba mu ko ba mu ko yóbbante ba léegi ah, instant yi nii macha allah sant naa la gërëm naa la ah, bu baax a baax baax baax parce que mënu ma nekk ci nit ñi ay maxi rek laa doon sol aussi tamit sama biir da doon métti yooyu noonu mais sant naa la daal gërëm naa la maa ngi lay jaare xam naa ni sama mbokk Guinée yi nekk fii nii si Guinée dinaa lay yebal foofu ñëw foofu incha allah rabbi kontaan naa baax a baax salaamaaleykum. nag ñu ñëwoon doon leen présenté lenn ci suñuy produit pour mauvaise haleine. traitement mauvaise haleine bi nag boo leen ko xoolee dafa yaatu. ci gémmiñ gi ci put bi ci biir yi infection yi. yooyu yëpp dafa nekk li xam te ni ay cause la lu mën a jur mauvaise haleine kon nag traitement bi yëpp lañ lay jox looy broso pour gémmiñ gi moo nekk ni buy dindi lépp li nga xam te ni day indi xetu gémmiñ comme ni ma ko waxee dafa am na nga xam te bi la ñenn ñi dañu am infection ñeenti sachet yi moo koy faj ci biir bi ay garab la ñu naan poudre la bio naturel ak li nga xamante ni moom lay àndal ndax nee naa leen mauvaise allen dem na ba ci ay ngelaw seytaane seen biir day ballonné di rëy te loolu yëpp rek day doy waar kat yooyu day dem ba di feeñ ci sax ci bakkanu doomu aadama ni ki di ko noyyi kon garab yooyu képp ku ko soxla mën nga ñëw fii ci Dakar seen boutique bi bio nekk Géejawaay arrêt de Balès kër Serigne Lamine Bara mën nga ñëwoo ci numéro yi ñu joxe 77 160 93 93 77 160 93 93. bisimilah Alaaji Bara dégg naa say mbir bu baax a baax a baax li ngay def leer na li ngay wax leer na. ñun moom ñun taalibe murit yi moom yaakaaruñu kenn ku dul Sëñ Tuubaa ak Seex Ibra moom moom laa lay bàyyeel moom mi nga xam ne moom moom lépp man nag ci sama jëmu bopp ku sa mbir leer na ndaxte bi nga feeñalee ku sa ngëm-ngëm ci yàlla ak ci yonante bi ndaxte kii wax jiital ku suñu borom ah, ak yonante bi kooku am defe naa ragal na suñu borom ragal boo xam ne nii lu muy def yëpp mu ngi ciy xool ku suñu borom ak yonent bi ndaxte ku dee yaa ëkk sa bàmmeel la te xool nga sa digganteeg ëkk sa bàmmeel ak sa njaboot bi nga xam ne moom ngay bàyyi ginnaaw man it koy koy yàlla laa lay bàyyil ak sëñ Tuuba ak Cheikh Ibra ndaxte ñun moom la ñu yaakaar fii te moom la ñu yaakaar fële kon nag li ngay wax leer na ci ci barke borom Tuuba. tey jii nag ñu am yéene waxtaanee lenn li nga xam ni lu ñu sénégalais yëpp xamee la. mu jëm surtout nag ci wàllu jaaro yi jaaro yi nag mbokk yi comme ni ngeen ko gisee nii muy jaaro bii nga xam ni ñu bëri yàlla dafa daan def fi moom ñëpp xam nañu ñu fonk ñaan lañ jaaro bii ngeen di gis nii dafay dox ci lépp li nga xam ni dafay aar nit ci cat ci làmmin ci rab ci jinne ci seytaane ak surtout liggéey bi jëm kanam wërsëg mën a ñëw bu baax xaalis mën a ñëw toog sa loxo bépp góor bi nga xamante ni macha allah rab yaa ngi toll sa buntu àddina di liggéey war ngaa am ñaan bu mel nii ndax ñu bari ci doomu adama yi seeni ñaan ci gàllaaj lañ ko daan def muy ay ndomba yi ñu takk wala ay téere donte nag jaaro bi sax dafa ànd ak ndomba ndax ànd naag lu ñu sangoo ànd naag lu ñu suuroo ànd naag lu ñu diwoo ànd naag lu ñu naan boo ko jotee danañ la expliquer ndomba boobu bu dee mënoo ko takk daal wax niñ koy def bu dee mën nga insha allahu rabbi day tax mu gën a baax ba lii ma wax ni di nga ci mën a sa bopp insha allahu rabbi képp ku ko am ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem sa wërsëg dina ubbeeku ni ngeen ko bëggee insha allahu rabbi ba ci sax ñi nga xamante ni sax ñoo ngi tukki te fa ñu nekkoon ci tukki neexul bëgg nañu jàll dem ci beneen dëkk te bëgguñu am benn ci yoon bi wala dëkk ba ñu egg mu gën ci ñoom kon buñ ko amee rek ñu boole ci waxtaan ak ñoom luñ leen ci mën a defal daañ leen ko defal ci kàttanu yàlla sëñ Bara maa ngi lay ziar ah man de aw ma wax dëgg yàlla parce que bi ma ñëwee jóge Belgique tukki woon naa def trois ans ñu delloo ma aw ma kayit ak yàlla def ñu boole ma ak yow ma ñëw seet arrêt du balees ma ne la ah man de jaaro bi may dégg laa bëgg bi ma joxee jaaro bi ma dem ñaan visa dëkk bi bi ma ñaan visa nag dëkk bu mag la dëkk bu jafe visa sax laa ñaan muy Angleterre bi ma ñaanee ñu jox ma visa trois six mois maag sama doom ma ñëw fii Angleterre dugalaat kayit bi ma dugalaatee ñu jox ma cinq ans direct ak passeport aw ma nag sa fay maa ngi lay yokk di la ñaanal yàlla na yàlla fay yàlla na Serigne Touba fay ak sëñ Baara daa kontaan naa ci yow trop trop trop parce que li la waxoon yëpp defal nga ma ko wax dëgg yàlla. lépp rek li nga xamante ni yéen a koy dégg ci biir émission bi moo koy wax jaaro bi dafay tënku ci loolu lépp. bu rouge bi itam macha allahu rabbi. moom it dafa baax trop ci wàllu jigéen. jigéen ñi xam te ni vraiment ay grande dame lañu ay femme d'affaires lañu. jaaro bi macha allahu rabbi dafa baax ci femme d'affaires. képp ki nga xamante ni yow femme d'affaires nga rek da ngay yëngu ci wàllu business ci wàllu jënd ci wàllu jaay ci commerce. seen wërsëg ubbeeku bu baax a baax a baax macha allahu rabbi. kii moom jigéen ñi laa ko jagleel ñi nga xamante ni ay battante lañu bëgg ñu wéeru ci kenn dañoo bëgg ñafe amal seen bopp yokk bu baax jëm kanam rawatina nag sax jigéen ñi nga xamante ni ñoom dañuy sëy am borom kër yu baax yu leen jàppale yu leen yërëm mën leen dimbale bu baax seen wërsëg ubbeeku dañu am luy toog ñu mën a tànn jëkkër ju baax ndax boo ko amee góor ñu baax daañ la wuyu si nga tànn ba gis ki nga ci bëgg ndax jigéen ñi dafa war tànn borom këram surtout nag jigéen ñi nga xamante ni itim dañu amoon jëkkër ju baax macha allah rabbi ay liggéey ay ay leek kooku wan leen ginnaaw def ay abandon ba mënatuñu déggoo mënatuñu am juboo loolu yëpp day nekk ci biir jaaro bi. faal faal faal ah jaaro bi moom macha allah macha allah bi ma ko takkee moom gis naa si ay xéewal yu bari bare bare xam nga man Koweït fi ma nekk nii moom amoon naa problème xaalis loolu wallahi azim temps yi may wax ak yow noonu pour envoyé la xaalis bi looloo taxoon mu jël temps moo taxoon mu jëloon temps parce que yoruma woon xaalis bu bari te damaa waroon fay location fi ma dëkk premier jour bi ma ko takkee wallaayul azim cent cinquante kéedi cent cinquante kéedi yu tëjul bënnul la ma nit may tekk sama loxo man daf ma def maa jaaxal man man <laughs> yàgg naa si dëkk bi kenn du kenn kenn du ma may xaalis kenn du ma may xaalis man pour pour may laal xaalis nit may ma mais jour boobu ñaanuma xaalis am naa problème ah waxtaan naa ah nit si jàmm ak salaam ndeysaan mu yékki cent cinquante kayit yi teg sama loxo jour boobu man sant yàlla bu baax man daal ma yàlla rek mooy buur ak yeneen ak yeneen ku may liggéeyal boo ma daan fay day yàgg ku ma téyal sa doom boo ma daan fay danga na man après mais danga may fay ba may ma danga may fay ba tegaat si dara. képp ku ñu ko laaj incha allahu rabbi sur whatsapp daañu la envoyé lépp lu jaaro bi di jëriñ ak ni ñu koy jëfandikoo nga gis ni du jaaro kese buñ koy liggéey day ànd ak sa tur ak say tur wayjur baatin dëgg moo nekk ci biir kon nag képp ki nga xamante ni rek yaa ngi suivre am na ci nag bëgg-bëgg yi dafa yaatu ñenn ñi dañu bëgg soxna tubaab ci loolu dana ci dox ñenn ñi itim dañu bëgg jëkkëru tubaab loolu dana ci dox ñenn ñi dañu bëgg tukki bëgg voyager loolu dana ci dox ñenn ñi ci des dañu bëgg toog ci réew mi servir seen dëkk nekk seen dëkk di liggéey ñooñ itim macha allah am na ñu nekk ci dëkk bi itim am ay post de responsabilité ñu leen di xeex di leen yàqal pour seen poste ñu jële leen fa gaara bi def ci dox ak ñi nga xamante ni itim dañuy liggéey seen liggéey mënuñu am dara luy toog lu ñëw day yàqu lu ñëw day seey lo dugg nga am ci problème lo dugg nga am ci galancor wala fa nga nek sax ñu bëgg la fa yëkëti surtout nak ci walu bayré ak walu commerce mom ma sha Allah waaw salam alaykum euh, seigne fall euh man ngi lay nuyu bu baaxa baaxa baax contane trop di la ñaanal parce que dag ma jëlé fu sori <laughs> ya wax digi yalla ma nekkon sori na metti won na lëndëmon na waaw mais bama jotté say sangat sa jaaro say li suuroo yépp li nga ma yónnee yépp macha allah waa léegi maa ngi maa ngi nekk maa ngi nekk si activité boo xam ni maa ngi si évolué bu baax a baax a baax te autant ñi ma woon ñi mel nga ma maa ngi lay sant bu baax yal na la yàlla gën a dooleel si li ngay def yàlla taxaw la parce que franchement gisu xaw ma sax laa war a wax parce que macha allah danga ma jàppale ci lu bari bari bari bari bari yal na la yàlla fay fekk sa njaboot yal na la yàlla dooleel nga gën a dooleel waa àdduna nga gën a jàppale waa àdduna sama xol fees na parce que danga ma jëlee fu sore sore sore sore sore yal na la yàlla defal jàmm na yàlla taxawu yal na la yàlla sàmm sàmm sa njaboot jërëjëf képp ku yàlla dimbale rek ba nga jot ko ci kàttanu yàlla yàlla dañ la ci dimbale baax ubbeeku moom macha allah te dafa ànd ak itam ay ñaan ci seeni wàllu wér yaram ndax wér gu yi ni ñi li ñu soxla mooy yàlla musal leen ci cat yàlla musal leen ci rab yàlla musal leen ci seytaane musal leen ci ay pexe noon musal leen ci ay gàllankoor kon kaaraange ngi ci biir ubbeeku ci biir ñaanub xaalis mi ngi ci biir ñaanub wér-gu-yaram mi ngi ci biir képp ku ko am yow yaay dimbale waate waaye kenn dootu la dimbali jaaro bi foqet lépp loo teg ci sa bët bëgg ko rek sunu borom dan la ko dan la ci jotale incha allah te surtout nag ñi nga xamante ni itam ci wàllu fay bor ndax dafa bari nga xamante ni dañu nangu seen alal toog ci wala nit lebal leen seen alal nangootuñu fay yi ci wàllu miraas ñenn ñi dañu am kër seen baay bàyyi leen ko wala seen i wayjur bàyyi leen ko ay nit ñëw toog ci def injustice kaw jaaro bi day dox képp kuy def injustice kon képp ku jël injustice bëgg ko jël jëmale ko ci yow rek incha allahu rabbi bu ñu toogee waxtaan ba wax ma ni nga ko bëggee ba ma liggéey la jaaro bi ak li mu àndal daañ la ci mën a defal tawféexu Serigne Touba bu baax képp ki nga xamante ni am nga ci ñun yaakaar rek ci kattanu yàlla ak baaxam a yërmandeem ndax jaaro bi xaatimu Souleymane lañ ko liggéeyee ak surtout Yusufa moom la ñu def ci biir fatiha falaqi naasi surtu yaasin amana rasul alif lam mim zalkal surtout surtu jinni ak xasaayitu Serigne Touba yi nga xamante ni liggéey nañ ko ci macha allahu rabbi rawatina jaalibatul marahib ndax ku baax ki ku tedd ki Serigne Touba Mbacke daal na wax ni jaalibatul maraxib képp ku ko taxoo dootoo ñàkk dara kon jaaro bi képp ku ko taxoo ci kattanu sunu borom dootoo ñàkk dara incha allahu rabbi ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ak aminu sëriñ bi. jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax wax dëgg yàlla jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax ñun kay ñoo lay ñaanal Fall jërëjëf man mii daal bokk na ak say taalibe waaw man mii daal xamal ni daal wax dëgg yàlla foo toll bàyyi naa sama bopp ak yow daal Fall waaw moom sama xol dafa sedd guy guy ci daal kon nag moom daal yal na suñu borom bi àggale yéene ji rek ba ni ko bëgg daal suñu borom defal la ko may la doole kàttanal la ba nga xam ne ni ngay dimbalee jaam ñi daal wax dëgg yàlla ba ñëpp seen xol sedd na ci. ndax man suñu borom daa dogal daaw bu yàlla dogalee léegi ma yor jaara bi dafa am ku ma ci dajeel biir Milan. waaye xamantewuñu mu di ma xool mu di ma xool mu ne ko ah sëñ bi na nga def mu ne waa maa ngi fi. ma gis mu takk jaara bi moo ma gis mu xool ba sam xool ma ma daa ba ma bu ma xoolee ma gis mu yor ab jaara ma xool ma gis mu xool ma xool ma ma xool ko mun ne waa sëñ bi na nga def yaa ngi jàmm ma ne ko sawa jaam ngi jàmm baax a baax mu ne yow daa mel ne yow mi bu ñu waxtaan daan daan déggante de mu a ko waaw mën nañ mën nañu waxtaan de waaw ndax ay Sénégal leen te ñoo bokk fu ñu jógee te daa mel ne yow ab taalibe nga ne daa mel ne màggal nga jëm ne waaw ma de fa laa jëm nii mu ne waa sëñ bi yow foo eh, sa jaar bi foo defar defarloo mu ne ko it foo defarloo sa bopp mu daal di ree ma ne ko Sénégal mu ne ko déet Sénégal sëñ Lamine Bara ma ko waaw moom la de waaw mu ne da ngay wax rek mu moom ma de mu ne ma ah kon de saa waay na ko fonk bu baax ci téye ko bu baax la ma wax moom ma ne ma mu ne ma waa wax loolu de kii bu ko caaxaan ma ne sama lii ma yor nii ba ma ko amee ba léegi caaxaan moo ko ca maa ngi ci gis li ma waxoon ca waajo ñoon bis ko kérok la ko mujjé gis ci la ñëk gi mujjé gise ci la ñëk gisé kérok lool la wax ci jaara bi né ma nang ko fonk bu baaxa baax de sama waaj ki xamoo li ci nekk lepp kookee ma la bu la ko wax ak bu la ko wax li xam nga ko xolam sedd na waaw kon nag xam nga né kon señ bi mom yow moom deel wax amin rek ci xam ne wax deug yalla bokki talibé ñëpp ñi ngi lay ñaanal ba faal kep ki xamanteni xamante ñu déglu rek di ñu suivre xefé ci am ci jaaro bi ak ñaan yé gàllaaj yi mu andal lu kaamin la liggéey bu bare bare la àndal du jaarab kese dafa am yu bare bare bare yu mu àndal macha allah képp ku ko am ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ndimbalu Serigne Touba rek lañ ci def moom amul amul amul sacrifice amul shirk amul dara tegu ci diine tegu ci lislaam tegu ci alxuraan incha allahu rabbi képp kuñ ci yàlla boole daañu la ci mën dimbali may la ci ñaan ba lépp taw feexe incha allah. képp ku ko bëgg mën nga ñëw fii ci dakaar Géejawaay arrêt du Balès kër Serigne Lamine Bara Fall incha allahu rabbi wala nga woo ñu ci numéro bii ñu affiché ci suuf ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ak aminu sëriñ bi incha allahu rabbi boo ñu woowee daañu la wax ñaata la wax la liñ koy liggéeyee ak niñ koy defee bu la arrangé rek ci kattanu yàlla daañu xefe noo ci jotee foo mën a nekk rek danañ xefe noo ci jotee kon nag sunu mbokk yi nekk Gambie ñu nekk Mauritanie ñu nekk bitim réew ak ñu nekk fii ci Sénégal fu waay mën a nekk rek foo ko soxlaa rek daañu xefe ba fi nga nekk nga jot ko incha allahu rabbi ku ma woo itam mën jot direct Serigne Lamine Bara Fall 169 45 45 mooy sama numéro direct inshallah allah soo ma ni ma jaaro bi la bëgg rek muy whatsapp bi sax bu la nexé bo mu ci defalee vocal ni ma jaaro bi la bëgg wala nga bind bàgg bi rek dina la envoyer ni muy démé inshallah rabbi jërëjëf yalla yalla wéral cër liggéey on vous remercie vraiment euh, de ce que vous faites et de ce que vous dites vraiment c'est vrai qu'il est rare que les que les marabouts de nos jours puissent faire ce genre de choses je vous remercie énormément Maintenant, en ce qui concerne la bague, en fait, je voulais faire cette bague-là parce que le, le, délai était déjà court. Hein. parce que quand le délai est court comme ça, ça nous permet de, gagner énormément. Je ne sais pas comment vous dire encore plus merci. Je ne sais pas comment Marie mari peut vous dire encore merci pour cela. Que Dieu puisse vous remettre au centuple ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire et ce que vous ferez. Que Dieu puisse vous remettre au centuple, que Allah puisse vous remettre au centuple ce que vous faites et que toutes vos affaires puissent encore plus, encore mieux même, encore marcher. Car c'est vrai que quand on fait les choses avec le cœur, Dieu nous le rend toujours au centuple. pour cat dafa baax pour làmmiñ day ubbi wërsëg xaalis mën a ñëw bu baax tey toog ci loxo jaaro bu bële bii moom mooy def loolu dafa ànd ak ay ñaan lépp luy def def bu bon rek bu la ko nit defoon sax day dal fii waaye day dellu ci ki ko def macha allah jaaro bi am na itam bu rouge pour stabilité ci seen wàllu sëy am na ñoo xamante ni amaguñu jëkkër yàlla dimbali leen ñu sëy ak ka ñu bëgg am na góor ñi nga xamante ni dañuy bëgg am soxna waaye lu ñu dajale pour takk soxna rek day yàq wala boog mënuñu am dara pour takk soxna mel na rab moo leen topp wala seytaane moo leen topp wala ka ñu bëgg sax kooku xoolu leen jaaro bi nag dafa am lu mu àndal ay ñaan bain mystique bi ngeen gis nekk ci papier ali mooy ànd ak jaaro bi lépp lu ñu xam ci alxuraan ak xasaaytu sëñ tubaa moo ne ci biir incha allahu rabbi képp ku ko jëfandikoo sa buntu wërsëg dana ubbeeku ci kàttan yàlla képp ku ñu soxla nag mën nañu woo 77 169 45 jafe-jafe ci seen wàllu wér-gi-yaram suis ngeen a ñëw fii ci géejawaay ci arrêt Doubalès ci sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Fall mu jàppale leen ci seen wàllu jafe-jafe ak seen wàllu wér yaram jokkalool ak man ci numéro yi may bind 77 646 41 21 wala 76 283 98 69. boo ñëwee dina la seetal te lépp lu muy faj. ci alxuraan la ko teg ci feebar yi may bëgg lim nerf sciatique hémorroïde ak yéen ñi am jafe-jafe ci kàttanu sëy walla ngóor yéen ñi bëgg am jëkkër te am faru rab fàttewuma leen jigéen ji teewoo am doom walla siti maa ci gaaw yéen ñi am xeetu gémmiñ te bëgg a bàyyi tux ak naan jëlal sama numéro 77 646 41 21 jigéen buy sëy te taw am doom ak ëmb yu yàqu yi ak jafe-jafe yi muy làmboo kyste walla fibrome muy faru yéen ñi bëgg tukki te am jafe-jafe ci wàllu kayit yéen ñi tukki ba pare am ay jafe avancement ci seen liggéey. ñii nag bu leen fa kenn jiitu muy jigéen yuy sëy te seeni jëkkër loxo bi dafa dëgër. ah mbokk ak Serigne Mouhamadou Lamine Bara jaaxle jeex na faj aajo moo ci gaaw ku fa dem. sa faju ticket de consultation bi 2000 francs